waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Kër Moussa Info mboolem ñu safoo kër gi ñu ngi leen di nuyu yëpp di leen siyaara di leen baalu àq di nuyu jëwriñu kër gi Kër Moussa muy sëñ Ousmane Gningue di ñaan sunu borom yàlla yàggal ko ci kanam njaboot gi di nuyu sunu jëwriñ ci wet gi tamit muy Massamba Fall ci daara ma fàttewul jinaan ak mbooleem murid yi nekk ci dëkk bi ak mboolem jullit yi nekk ci dëkk bi rawatina ñu safoo kër gi di leen wax ni ñun day ñoo war a nekk nag Euh, maanaam euh, seen gan gi leen war a dalal suba incha allah ci wàllu safar ji ñun nag ñu nga dëkkee Kayaar waaye ñu liggéey fii ci daari xam-xam ci daaru alxuraan ji fii euh, ànd nag di ndongo ci kenn ci ndongo yi sëñ Xaadim Njaay Kayaar yi ñu tudd Xonn Diop ñu gën noo min ci sëriñ Diop ñu bokk ak ci liggéey bi fii di ñaan sëñ Muntaxa nag suñu borom gën ko yàggal suñu kanam si dara jonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñëpp kon di jox dig daje mbokk yi ñuy déglu àllarba incha allah ci 21 heures fii ci Kër Moussa Info asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.